waaw maa ngi leen di ziar leen nuyu ñëpp euh, képp ñuy seetaan euh, foo mënti nekk maa ngi lay ñaanal euh, yàlla nanga am jàmm yàlla na nga nekk ci jàmm jaajëf. bon nañu sant yàlla déjà ci déroulé yi maanaam élection bi am na si jàmm dugg nañ ci si bisimilah rahmaani rahim génn ci si alhamdulilah. Euh, je pense que li nga xam moom mooy am ba des mooy que nii sénégalais yi ñoom ñoo décidé sénégalais yi ñoom ñoo voté ji sénégalais yi ñoom ñoo def seen choix donc euh, après am nay wax c'est effectivement mais je pense que ñëpp ñi bokkoon ci élection yi euh, soo gisee la moo tax bëgguñu def recours parce que je pense que c'est c'est évident c'est-à-dire que président Macky Sall am na victoire seen kaw. sénégalais yi ñoo fal Macky Sall je veux dire ñoom ñoo voté ñoom ñoo dem si si urne yi tànn Macky Sall en tout cas pour la grande majorité donc même bu fekkente ne am na ay irrégularité effectivement irrégularité yooyu terewul que sénégalais yi dans leur majorité ils ont choisi de voter pour Macky euh, je pense qu'il faut que ñu jàng au Sénégal tamit à un certain moment analyser les choses de manière dépassionnée parce que fii rek ñu ngi jiital yenn wax yi dënn nii day tàng pour rien campagne bi mu amee wax yu nekk dégg dégg nañ ko politiciens yi waxante nañ fi waxoo façon wax bu nekk ci réseau sociaux yi gis nañ fi façon message bu nekk et loolu baaxul sax pour pour pour pour stabilité rek euh, réew donc euh, ni ma ko analyser c'est ça je sais que peut-être sama candidat gagnewul c'est vrai ki gagné sénégalais yi dans leur majorité moom la ñu fal donc faut ñu respecter choix boobu je pense qu'il faut que ñu ñu jàll ci leneen pour man li ma analyser tamit deuxième analyse bi ma def ci ci élection yi mooy que ni pour man ñi gagné dëggantaan mooy jeunes yi pour man jeunes yi ñoo gagné. voilà ku mel ne Sonko baaxoon na ci élection yi parce que tax na ba jeunes yu bëri xale yu jigéen sax yoo xamante ne mosuma leen dégg ñuy wax ci affaire yu élection tax na ba ñoo ñëpp commencé nañu intéressé wu ci politique. je pense que c'est quelque chose de de quelque chose de remarquable et j'espère que ni dynamique bi ñu nekk nii dinañu si continuer parce que pour man suñu bëggee changer réew mi il faut que la chose politique commence vraiment il faut qu'on s'intéresse à la chose politique et donc si élection je pense que loolu c'est quelque chose bu bu bu ma bu ma bu ma marqué je pense que ça a marqué tout le Sénégal léegi nag euh, qu'est-ce qui va nan lay mujjee locales yi di ñëw ak euh, législatives yi di ñëw est-ce que jeunes yi dinañ si dugal seen loxoom déet c'est ça la grande question. les médias n'ont pas eu la tâche facile parce que y benn média bu bees bu tudd les réseaux sociaux boo xamante ne chaque personne média la chaque personne bu am téléphone bu mun a filmer. bu am ay followers boo am plus de mille à deux mille personnes ñu koy topp kooku média la directement donc les médias n'ont pas eu une euh, la tâche facile pourquoi ils n'ont pas eu la tâche facile parce qu'il y avait trop d'informations il y avait énormément d'informations ci diir bu gàtt donc pour ñu mun a analyser ndax information bi intox la fake news la wala dëggantaan la il il aurait fallu une équipe ku nekk da nga war a sa équipe da nga ko a doubler wala tripler ko donc problème boobu la ñu amoon donc y a eu beaucoup de fake news que j'ai vu même sur les sur certains sites y en a qui ont fait attention c'est vrai mais <laughs> am na ñoo xamante ne du ñu dem si site d'information yi pour pour pour pour xool lu xew ils vont pas vérifier y a des gens yoo xamante ne seen seen groupe WhatsApp bi rek doy na leen euh, kii site d'information bu ñu fa gisee benn benn vidéo automatiquement dañuy jël vidéo boobu vilipender ko partager ko et lu ñu gis ci vidéo lu ñu gis WhatsApp ils pensent que c'est vrai et loolu c'est un problème c'est-à-dire qu'à un certain moment dafa bëri ñoo xamante ne euh, réflexe bi ngay am boo jotee benn message nga ne lii est-ce que dëgg la avant nga koy partager nga posé wu question boobu y en a plein qui ne pensent pas qui ne réfléchissent pas comme ça et du coup les médias comme je dis ont eu ce problème heureusement qu'il y avait peut-être des gens qui veillaient ay notamment sur euh, Twitter wala yenn saa yi sur Facebook il y avait des gens xamante ne ils sa ils envoyaient en tout cas ils essayaient de de calmer les gens ils d'envoyer des informations qui étaient des informations positives ça c'est une chose beneen affaire bi am bi ñuy seetaan télévision yi selon télé bi ngay seetaan effectivement euh, loolu noonu mooy par parloo bi feeñ na par parloo bi feeñ na c'est normal sénégalais wolof lu mu wax ñàkk féete day xañe day xañe wërsëg. depuis des années ah ñu ngi xeex loolu ñu ngi wax loolu éthique et déontologie boobu ñu bëri ñu ngi siy jéemoo ñu ngi siy xeex mais man musuma gis seenera par exemple euh, tëj benn télé wala benn rajo. wala fayloo benn télé wala benn rajo benn amende parce que dafa violer éthique yi wala déontologie donc ya des gens de des médias yoo xamante ne ci élection yi se sont positionnés comme étant le média du peuple ku nekk da ngay am sa euh, da jéem a fexe. nooy amee yenn information yu yu mun a yu mun a euh, yu mun a euh, créer le buzz donc euh, même sur les sites comme je disais tout à l'heure sur les sites web mais encore une fois site web yi peut-être c'est benn minorité moom moo fay dem majorité bi de seetaan télé majorité bi de déglu rajo bu ma xoolee par exemple yenn débat yi doon am par exemple que ce soit sur la TFM wala yuy am des des médias pour ne citer que cela ce sont les types exacts moom mooy ñaari médias yi nga xamante ne ku nekk am na benn candidat boo xamante ne ku nekk sa patron am na benn candidat bu mu àndal bu leer nañ Youssou Ndour nguur gi la àndal des médias euh, opposition bi la àndal ak Idrissa Seck avec euh, notamment Bougane donc effectivement avant élection yi avant les élections soo doon seetaan seen télé yi les publie reportages les euh, propagandes yi doon am si si yi mais ku nekk da ngay jàppale sa candidat et comme je disais CNRA musul taxaw ouvertement quoi que ce soit wax musuñu tëj kenn parce que dafa supporter kii wu qui que ce soit ou qui que ce soit et donc du coup selon yow fi nga féete média bi la intéressé ngay seetaan su fekkente ne yow par exemple opposition bi nga gën a faral mais tu vas regarder un média boo xamante ne day gën a mettre en avant opposition bi maanaam ñoom lay invité ñu ñëw jox leen ay temps bu fa kenn ci nguur gi ñëwee toog ñu vilipender ko xam nga attaqué ko et c'est comme ça que ça s'est passé. xam naa daal Boun Abdallah bëri na xam-xam parce que moo ne woon cinq candidats <laughs> ñooy ñooy jongante cinq candidats jongante moo waxoon cinquante sept pour cent finalement affaire bi nekk ñaata cinquante huit pour cent donc euh, Boun Abdallah bëri na xam-xam mais c'est normal ci benn côté c'est normal boo nekk ci au cœur de l'état boo yoree appareil d'état sa mesure de sa sa instrument wala sa outil yi ngay utiliser pour mesurer wala pour natt bokkul ak outil yi euh, peuple bi wala yi ñeneen partie d'opposition yi di utiliser ñu bëri dañuy def ay sondage peut ci internet bi mais ñoom bu fekkente ne yaa ngi am par exemple yaa yore parti yaa yore euh, yaa nekk au pouvoir am nga possibilité ne serait-ce que ci parrainage yi loolu laay ñëwaat chaque fois si parrainage bi Mimi Touré bi ñuy ñëw di déposer dafa newoon ko ñoom amoon nañu plus de deux millions entre moom trois millions de de de parrain donc ku la ne am nañu trois millions wala deux millions et poussière de parrain kooku noonu bu ñu demee si bi deux millions cinq cent mille personnes votel ko kon moom xamoon na à peu près nan pourcentage yi nan lay demee. donc parrainage bi ça a permis tamit de d'éloigner en tout cas ça a permis de s'organiser pour xam ñan ñoo dangereux ñan nga xamante ne du ñu am dara ñan nga xamante ne bof dañ si dugg nii pour dugg rek ak ñan nga xamante ne il faut ñu sorale leen donc ils ont fait ce qu'ils avaient à man noonu laa ko mën a waxee mais toujours bu ñu waxee dañ naan non loi bi la non dañ naan non euh, constitution bi la chaque fois parti au pouvoir bi day làqatu ci ginnaaw loi bi ci ginnaaw constitution en tout cas si ginnaaw règle yi pour ne moom du ci dara donc bu nab Abdallah bu waxee loolu et si se bu taxawee jour avant ñu joxee moom tamit joxe ay tendance parce que si yeneen chaîne de télé yi tamit gars yi ngi doon joxe ay tendance mais le fait que mu tudd Boun Abdallah Dionne moom tamit nekk benn genre ou benn qu'il soit euh, voilà c'est c'est pas n'importe qui c'est le premier ministre du Sénégal c'est le directeur de campagne de de Macky Sall ba pare ñu wane ko en direct à la T à la RTS donc mu ñëw def déclaration c'est sûr que tout le monde a trouvé que c'était c'était c'était vraiment déplacé de sa part de def loolu mais ci yeneen chaînes yi tamit c'est la même chose opposition bi tamit chacun da doon joxe tendance et loolu noonu c'est normal quand je dis c'est normal mooy ku nekk à un moment tu te dis écoute sortie des urnes man amoon naa fa représentant soo commencé compiler di multiplier say kii sa say say résultats tu dois yow tamit commencer def say tan say say sa kii sa tendance bopp sa tableau et tu te dis est-ce que bokk naa ci eh, trois premiers yi est-ce que man maa jiitu et cetera et je pense que foofu la coow li nekk mais encore une fois euh, Abdoulaye Wade quand il disait boo leen demee élection Macky na leen dóor à plus de cinquante quatre pour cent xam na lu muy wax ancien président de la république la xam na ne boo nekkee ci nguur gi am na yenn outils yooyu am yoo xamante ne dina la permettre en sauf catastrophe am na yenn outils yoo xamante ne boo ko maîtriser di nga mun a xam élection yi ban côté la jëm. politique euh, fii léegi yaa ngi naan je m'intéresse pas la politique bu amoo dara lay wax. parce que politique mooy sunu quartier si sunu si sunu kër lay doore ci quartier bi ensuite ci ville bi ensuite euh, sur la nation et cetera donc je pense que bu ñu buggee changer dëkk bi il faut mu commencer ñun il faut ñu commencer ko changer si sunu comportement il ñu commencer ko changer ci institution yi nga xamante ne moom moo ñu gën a jege ça c'est la première chose et la deuxième de choses mooy que ni bu ñu taal dëkk bi bu ñu taal dëkk bi su ñu wàccee di taalay pneu di nañ ko def nañu revendiquer de manière très pacifique et très cest dire am nooy revendiquer tu as plus gain de cause qu'autre chose mais il faut que ñu changer sax comme tey jii nii li ñuy wax souvent bu étudiants yi amee lu leen naqari ñu taalay bus yaa ngi taalay bus pour maanaam euh, revendiquer sa benn maire pour maanaam réclamer dara sa ñu yokkal la sa bourse wala affaire yooyu comme je disais tout à l'heure 2019 ça marque benn début en tout cas j'espère que ça va ça va ça continuer mais jeunes yi doon kaas jeunes yi doon euh, jeunes yi doon wax ci réseaux sociaux yi di di di di di am benn idéologie commencé gëm ne dinañ mun a changer Sénégal nañu continuer xam ne dinañ mun a changer Sénégal nañ ko changer à condition que chaque jour que Dieu fait même bu dee benn affaire bu ndaw defal benn initiative buy wane ne yow tu temps à être un bon citoyen boo gisee benn action bu ñaaw loo xamante ne dégradation la de xam nga de sunu environnement wala nga gis je sais pas moi kuy saw ci mbedd wala nga gis ku jël sens interdit c'est des choses yoo xamante ne il faut que ñun ñu xeex ko du ñu xaar nguur gi duñu ko xeexal ñun ñoo ko war a xeexal sunu bopp et à partir de ce moment je pense que même bu fekkente ne génération bii nii nii moo koy commencé même bu ñu si jëriñëwul deuxième génération troisième génération dina ko dina dina si jëriñu je pense que loolu moom mooy loolu mooy loolu mooy mission bi il faut juste que ñun suñu bopp ñu yar suñu bopp ci lu bëri ñu yar sunu bopp xam ne képp kuy ñëw naan day nekk président itam le peuple n'a que le président qu'il mérite le peuple n'a que le dirigeant qu'il mérite képp ku ñëw nekk président c'est parce que ñun ñoo ko fal ñoo ko votel quand je dis ñun mooy la majorité a toujours raison entre guillemets la majorité mooy démocratie bu ñu nekkee démocratie majorité bi lu ñu bëgg le pouvoir du peuple le su fekkente ne on veut que ce change de mentalité nañ leen jox wane exemple bi am na yu bëri si suñu comportement je pense qu'il faut que ñu dindi ko ñu changer ko mi ngi dooree ci réseaux sociaux yi saagante yi weerante yi yenn yu ñaawteef yi am ci réseaux sociaux yi c'est normal nit ku réew këram mais day feeñ ci léppam day feeñ ci mbedd mi réseaux sociaux yi mbedd la réseaux sociaux yi mbedd la ay post yenn publication yi gars yi di publier et c'est ça qui loolu moo may xaw a moo tiital tuuti quoi je je pense qu'il faut que les jeunes il faut que ñu xaw a focus tuuti concentré wu tuuti ci essentiel bi am na yu bëri yoo xamante ay caaxaan la nañu focus nañu ñun sàcc si ay dëkk comme ay Rwanda ay dëkk yoo xamante ne ñoom seen manière bi ñuy xalaatee ci seen bopp population bi moom mooy tax ba seen président il est obligé oui de les suivre il faut juste qu'on essaie d'évoluer si mentalité il faut qu'on essaie de gën a xam tamit xam-xam lu am solo la nañ nañ nañ jàngi <laughs>